internetu Allô Sénégal dal leen ak jàmm ñu ne rëbbkatu jaan jaana koy rey wala rek ay tuuma yu ñu teg ci ndoddam ñu wax rek ci coow lu am ci diggante ñenn ci tiktokeur yi ku ci mel ni rek Adamo tudde boppam le boss de négri waaye nag Malick ñu gën ko xamee ci tiktok bi ak ki nga xam ne rek moom mooy bàmba moom tamit ñu koy wax Bamba le boss di tiktok coow loolu nag li ko ëmb rek mooy ñaan ñi di Bamba at ki nga xam ne moom mooy Malick vidéo bi nga xam ne vidéo lomotif la ñu ne am neen ko ci kii di Adamo vidéo le boss de Negri waaye vidéo boobu nag mën neen wax nag ne kenn gisagu ko rek jaxran gannaaw bi nga xamee ne kii di Malick ak Bamba dañ na ñoom yore neen vidéo Adamo waaye nag duñ ko dugal rek sa seen compte TikTok ndax buñ ko dugalee ki nga xam ne moom mooy TikTok dafay tëj kont yi li ñu xam ne ci vidéo boobu rek mooy kii di Adamo moo ci nekk waaye nag li gën a doy wax kim ci nekkal góor la di ci def ñaawteef yoo xam ne mooy loolu mu anam boobu leen taxawee ku ci nekk rek nee na yore na kaawu Adamo waaye nag du ko mën a dugal Adamo la boss de Nekri borom kaayi Adamo mi nga xam ne mosul bàyyi weex ci benn fan mën neen wax ne kaa bu fi am rek moo ko tasaare moom nag noppi waalewul benn yoon lekk loolu ndax bu loolu amee nag génn na def vidéo tamit rek pour setal deram wax ne ki ñuy wax ne moom la du moom waaye ñaar ña nag mu mel ni rek bàyyiwuñ mu sedd liñ ko xamal rek mooy ni vidéo yi yor nañ ko di di leen fexe ba ñëpp jot si malgré nag mënuñ ko dugal seen compte bu jaree sax ñu créer compte yu bees jàllale vidéo yooyu après ñu tëjaat li ci gën a doy waax ba doy waax mooy xam nga ni Adamo rek moom tàmm na di wane ay vidéo jàmbur waaye nag démb pour setal deram nee na dafa wane rek li nga xam ne moom mooy vidéo yam def direct si comme ni ko yaayam juree woon jël ay awram rek di ko comparé ak vidéo bi nga xam xam ne moom leen wax ne du moom loolu nag nekk loo xam ne ku gis rek boo tiitul war ngaa jaaxle ndax rek moo ngi fii door a am réewu Sénégal ñu bàkkee woon ko réewu teraanga réewu Sénégal doon réew moo xam ne dañ doon suturalante tey ji bu ñu demee ba nga xam ne ñàkk teggin gi moo dominer yi nga xam ne surtout mooy sutura gi ndax tiit warul ñi nga xam ne ñoom ñooy askan bi tey ji ba ñu créer réseau sociaux yi ndax def ay ñaawteef moo taxoon ñu dem ba nga xam ne réseaux sociaux yi jëf yu ñaaw yi ñu fiy gis moo ëpp lool jëf yu baax yi ndax boo gisee sax képp koo xam ne bëgg na rek ñu koy suivre sur TikTok wala Instagram wala yeneen ak yeneen day def rek jëfi ñàkk teggin wala rek di waxtaane ñi nga xam ne ay nit leen wala rek di weer ay nit loolu doon lu mat a bàyyi xel ndax dañuy faral di wax lu waay reen di sa loxo lay naaj ci waaye tamit loo xamul kañ lay jeex boo ca nekkee nay neex man nag dama naan loo xamul kañ lay jeex boo ca nekkee nay rafet loo ba guddee fekk la si dee koy rafetal kon nag neen defaraat toogaay ne at ni ñu waxee bàyyi rek ñaawteef yi nga xam ne ñoo ngi koy def ci réseaux sociaux yi waaye tamit yàqante bi at rek xaayu sutura nit ñi réewu Sénégal réewu mag ñu baax ñi réewu Sénégal réewu kilifa diine donc neen defaraat toogaay bi rek taxool nu ñuy doxalee ñu bàyyi rek di accorder importance ñi nga xam ne amuñ ko ndax boo xoolee mu di musicien bi mu di artiste bi ba si ñi nga xam ne ñoom ñooy tiktokeur yi ku ci am doole rek askan bi ñoo la may doole ndax bu dee yaa ngi def dara ko askan bi seetaanul gëm naa ne sa doole boobu dina wàññeeku baax donc ñu xoolaat li ñu seetaan parce que li nga xam ne rek moom mooy nombre de vie day jay nit ki ba nga xam ne day yaakaar ne li mu nekk rek moom ci yoon alors que ni nekkul ci benn yoon donc yéen ñi seetaan bàyyi leen di di dooleel ñenn ci defkat yi te delloowaat xeer rek ci suñu brom bi tabaaraka wa taala askanu askanu Sénégal teraanga leen ko xamee mais pas ñaawteef yi nga xam ne dañ ko fi faral di gis léegi internetu Allô Sénégal lii leen leen dégtaloon bu leen fàtte abonné pour jot suñu yeneen xibaar A los Allô sport. Allô culture. Allô santé. Vivez toute l'information d'ici et d'ailleurs avec Allô Sénégal. Allô Sénégal. Allô pour tout soin.